lay dañ lay sant rek sant bu wér waaw ñu ngi lay sant biir di sant biti ndax Mbacke dama moo defal nu joom hmm. ñu ñun ñépp nag hmm. sant rek hmm. li mu xamale daa rëy lii balaay sax waaw ñu lay wér fu nu mën nekk rek Mbacke fekk nga nu fa waaw fu nu ne rek Mbacke fekk nga nu fa waaw bëgg ñu bëgg njaboot Mbacke ñu xam nañ ko waaw ndax moo moo tax tey nga ba fii balaay sax gën a yàgg te gën a wér yow loo dund doyu loo dund rek Mbàkke doyu ak ci maam Cerno Borom Daaru waaw ñoo ngi lay sant nag balay sax ñun Mbàkke suñu la gisee suñu xol day sedd grek suñu la grek, dootu amati benn bëgg-bëgg lu dul sa bëgg-bëgg rek rek la nii rek rek rek waaw lay waaw balay lay sant waaw sant biir di sant biti waaw balay sa barki jëf daal jërëjëf balay sa jërëjëf jërëjëf balay sa xol yee fees nag mun ma wax naan mbàkke waaw waaw xol yee fees rek waaw kër kër loolu dana gën ñu wëndeelu ci Europe bi. waaw eh, eh, di sikki sàkk eh, tawfeex ji yàlla defal sëñ Tuubaa. waaw suñu borom dafa wulli yeneen ndaw yoo xam ne dañoo taxaw. Mm-hmm. gën leenu liggéey. Mm-hmm. ëpp leen personnalité ak dignité gën leen xam dëkk bi ba noppi nangoo <coughs> ñàkk di ko delluwaat ci lislaam. Mm-hmm. loolu ci lislaam nag. tolloo nag waaw kenn du leen fekk ci dëkk ba xeeb leen. yéen moom amu leen kilifay tubaab waaye da ngeen am ay kilifa yoo xam ay jullit lañ day murit dëkk Sénégal. est que. waaw utuñu ay royukaay fii tamit nag. ndax fii li fi ëpp ci ñuy ci mode la ñu li ëpp ci ñuy roy ay modèle lañu. waaw mode day xew waaye modèle moom. waaw ba yàlla laal di suuf si moom modèle yi ay modèle rek la ñu doon. mode moom temps espace la am. waaw waaw dafay xew. leen baax. amiin yaa rabbi. amiin. seen kilifa du ci sàmm. di jiitale ngeen amee mhm. personnalité ak liggéey. waa ci ut seen i njaboot. seen i kër. kenn seeru leen ci mbedd bi ngeen nekk ci lu nga mënta nekk te loolu tamit ci liy sagal kilifa la bokk. ak li kilifa di sagoo ci njabootam. ndax euh, Sénégal moom delluwaay la boo xam ne. Mhm. fii bu ñu fi nekkee lu mën a def ak mhm. lu fi mën a am Sénégal yi delluwaay waaw Sénégal yi delluwaay mhm. waaw dañuy mhm. jàngee suñu aada seet la ca dëppoog diine ba di ko ko fa lañ jàngee suñu diine tamit nag euh, ba nga xam ne du ñëw fii complexe di ñu jàpp ba Euh, der bu jaune wala bu ñuul wala bu mën a doon mm-hmm. di soppi li ñu fi indaale mm-hmm. waaw dañoo xeebul li ñu jàng doog ko ñëw mm-hmm. li ñu jàng li ñu xam dañ ko naw doog a ñëw moo tax bari na ko sol mbubb ñëw fii sumbi ko sol mbubbum waa dëkk bi wëlbati ko di xeeb mbubb yam soloon ci réew mi waaw te loolu yëpp ñàkk xam sa bopp la waaw kenn ku ne mbuubi nga sol bu suufee tamit mën nga ko yéegal ba ñëpp di ko seen parce te ku nekk noonu la def mhm. waaw ñii dañoo dem participer teew ak seen costume mhm. ñii participer indi seen i karawaat mhm. ñii participer indi ay në waaw ñii participer indi jàllaabi waaw ñun dañoo war a participer nu nit importé baylaat yeeg son yóbbu yeeg waaw kaftaan yi taxaar bu mën a ci àddina bi waaw kon mm-hmm. ñun du ay complexe. yu mm-hmm. complexe waaw. Mm-hmm. man nañ nag lu ñu fekk ñu di def ñu war leen ñu war ko dàq. ba noppi nag boo seetee lettre bi ci biir enveloppe bi Sëñ Tuubaa fees ko dell. waaw waaw waaw ndax nit moom la yi ci forme. gis Sëriñ Tuubaa. boo mu ci biir suñu fond yëpp tamit. waaw sëñ Tuubaa ko tabax. waaw te li mu ko tabaxee ci leeru yàlla la ko tabax. waaw yàlla boobu mooy mooy lislaam tawxiid yu mat sëkk mhm. nga xam ne euh, ji mhm. euh, te dañ koy jàng mhm. moo ñuy jox liimaan ji liimaan ji euh, mooy tawxiid waaw ji téere yi fiqi ñoo ñu koy ñoo ñu koy jàngal. Mm-hmm. lixsaan ji. Mm-hmm. téere tasawuf yi ñu koy jàngal ñu ñetti tànk ci. waaw mm-hmm. ah, te benn mënu cee dem bàyyi moroom gis. waaw ah, te boobu ci mujj sax ñu gën ko woyofal. ba ko Jibril dikkee yonente bi. da koo xamal ne ko euh, daa xamal saxaaba yi ñoom Jibril la ñu doon leen jàngal seen ji. Mm-hmm. waaw kon nag gën a farlu waaw gën a fexe sagoo sëriñ bi mm-hmm. waaye gën a fexe sëriñ bi gën a sagu ci noonu ndax mm-hmm. sëñ benn jaboot alhamdulilah ak noonu mën a mel eh, moom yërmande jëmu yor yërmande yàlla la yàlla ko ko jox yàlla mi doon maye xilaafa te te te wuutewul ba noppi joxe ndonal ñu nekkal ko fi moo dogal suñ tubaab nekkal ko fi di yërmande waaw waaw ci maqaamam xilaafa sëñ Tuubaa ci la nekkee yërmande yàlla aataynaahu rahmatan min indina yàlla joxoon na ko jàmm joxaat ko ilmu ladunya wa allamnaahu min ladunna ilman ab jàmm rek la ko joxoon muy xaadir waaw kon sant yàlla bu baax a baax a baax hmm. Hmm. waaw sant yàlla bu baax hmm. wal sant bi waaw suñu xol sant bi yàlla gën noo taxawu. amiin amiin amiin amiin amiin. jàmm. amiin amiin amiin. sutura. ak yëngutu yi. amiin. waaw ban gën a sago. Mm-hmm. waaw sago sëriñ bi fu nu toll. di kat nu yàlla incha allah waaye ni nu sëñ bi ma dem sëriñ. ñu mm-hmm. ko manqué mukk ay dong. amiin yaa rabbi. waaw waaw waaw. amiin yaa rabbi. message boo porté ci sëñ Tuubaa mhm. war ko exporté nag yóbbu ko fu nekk ci addina mhm. bi mhm. waaw loolee loolee nañ koy bàyyi xel bu alhamdulilah buntu yabeel bi ku ko fëgg tamit nga xam ne fii du fu nit jaar bi yëpp sëñ bi moom yëbluwul waaw yëbluwul eh, waxkat yi dañ ne ne kenn du ma yëpp waxkat yi mm-hmm. dañ ne bul ne kenn du ma mm-hmm. ndax am nañu ku jub ñu yàq mm-hmm. waaye waxkat yi dañ ne danga naan du ma def luñ may yebee lu ma def luñ may yebee moo gën kenn du ma yàq waaw Sëñ Tuubaa na ba daa def lu ko kenn dul yebee waaw sant rek sant alhamdulilah waaw man <coughs> waaw marché bi ñu ngi nuyoo bu baax. waaw ñu ngi baax a baax na baax. am na am nañu <coughs> loolu nag ngir bëgg ñëw. ndeysaan ngir gan gi nag gàtt gi mu gàtt tey moo a wante ñoo ngi ñoo ngi boobu ba tey ñoo ngi ci waa Bordeaux ak Nantes ak fépp nag. dëgg sama téléphone bi boobu ba tey mbàkke. dëgg la waaw noonu lëkkul benn yoon. dëgg la waaw ndax donc mbokki marché yi ak Nantes ak Bordeaux ak. foo ñu mën a nekk ci France. Mm, Normandie ñëpp sax. waaw ah, waaw Normandie du ci du ci ñoom ci nun la. Mm, est-ce que est-ce que gàttal yoon wi. est-ce que mm, est-ce que gis ñëpp. Mm-hmm. waaw mm-hmm. Mm-hmm. nañ ñëpp. alhamdulilah bu ñëpp. alhamdulilah ñëpp. bu baax rek. waaw loolu moom it sant bu baax ci taxawaay bi. ah te xew yi moom gàtt yëpp indi fi. dëgg la ah ànd ak njabootam ko ba léegi waxtaan ak man waxtaan mooy ànd ak soxna moom yëpp. am nañ mbégte bu baax ma moo daan noonu sëñ Moustapha. Cheikh Abou Ibrahim ñaari Ibrahima yi. Ibrahima ñetteel yi. waaw waaw.